avenir suñu dëkk suñu réew que daf ñu soxla ñun ñëpp te kenn ku nekk si ñun dafa war a xool ci boppam lan la mën a apporter réew mi ndax suñu réew pour mu soppeeku bëgg ñun ñëpp ñu bokk ci te jeunes yi ma fekk fii sori nañu réew ma mais seen xol yi ñu ngi ci réew mi te loolu laa fekk fépp fu ma dem ci diaspora bi que ñoom ñëpp fu ñu nekk ñi ngi xalaat seen réew ñi ngi participer ci seen réew

ñu arrosé ko maanaam gannaaw bu ñu waxee ba pare parce que idée lu mu rëy rëy projet lu mu rëy rëy waaw lu mu rëy rëy bu àndut ak jëf amul njëriñ quoi donc kon lu ñu fi jëlee tey mu mën ñu pousse ñun ñëpp ñu mën a dem ci jëf lu mu tuuti tuuti ñuy jëfee suñu idées yi pour mën a changer suñu réew wax ji ba wax ji am na fu mu baaxee mais na ko jëf ci ëpp doole quoi parce que buñ bërilee lay jëf ji néewal wax ji rek léegi tey ñu romb àdduna bi àdduna bi li ñu rombee mooy ñun suñuy wax moo ëpp suñu jëf donc tey li ñu doon waxtaanee mooy que ñu fexe kenn ku nekk si ñun mu bañ a xaar kenn mu fexe di jëf lu mu tuuti tuuti ko defee ñun ñëpp bu ñu jëfandoo dara pour suñu réew ëllëg ñu mën a soppi suñu réew donc foofu lay au bi ñu wut xam-xam ñu rafetal ko xam-xam bu amul bu rafetul amul teggin amul njëriñ te ñun suñu aada suñu mag ñi daawuñ saaga. daawuñ saagante bàyyiwuñ ñu fi ay saga suñu mag ñi fi bàyyee Cheikh Ibrahim Niass Cheikh Amadou Bamba El Hadj Malick Sy Cheikh Omar Foutiyou et cetera ñoo ñoy suñu référence Cheikh Anta Diop et cetera te référence yooyu li bind bàyyee fi yépp gisuma ci benn saga on doit être on doit avoir des désaccords parce que différence euh, idées yi la contradiction des idées dafa am solo ci réew je comprends la frustration de la jeunesse mais man limen ma ñaan moy

si on n'est pas d'accord montrer on doit avoir le droit de partager nos idées de montrer qu'on n'est pas d'accord sur les politiques sur le système parce qu'on est en démocratie mais on doit le faire euh, en gentleman donc jeunesse diaspora surtout mais aussi sur parce que diaspora bi speak out parce qu'il y a une frustration. et que nous ñuy te réew mi dafa soxla ñu tabax ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo bëggal Sénégal lu baax donc ma ba daal foofu la doon moo taxoon ma ñëw rencontré diaspora bi fii di ko def cëpp ci àdduna bi pour ñun ñëpp ñuy waxtaan ci ni ñu mën a def pour apporter développement suñu réew